awal bi di weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di weeru gàmm bis bu nekk nu génne lenn ci li ku tedd ki bind ci weer wi bu ko defee bu guddee nu génne lenn ci nunu li nu koy tagg àddana jàpp ne bu dajee li muy daj ci yàlla ak yonent bi ak weeru koor ak ñi gëm yàlla ak jullit yi yonent yépp awliya yépp saalihin yépp ñëpp li muy daj ci ñoom ñun tamit defe naa ni sunu warugar mooy nuy ñog ñogi di daj moom li nu war a daj ci moom moo tax ma ni ko baax de wa baax del basmala wa baax del wa wa baax del basmala wa santati naa ku tedd ki bi ma mayate ci weeru gàmm wi ma jóg di koy woyate santati naa ku tedd ki bi ma mayate ci weeru gàmm wi ma jóg di koy woyati ni mu ci tagge yàlla buur bi di ci woy nabi noonu laa def ak moom giirub xarn bi mu ci tagge yàlla buur bi daan ci way nabi noona laa di def ak moom giirub xarn bi la ci daa tagge yàlla daan ci way nabi noonu laa di def ak moom giirub xarn bi faw xana ñi yàlla yónni ci àdduna bi yàlla ko wax malaaka yi ñoo ko wax nabi moo tax sama mécce mooy di ko yendoo tagg bu ma jaay nelaw yi jóg di ko tagg moo tax sama mécce mooy di ko yendoo tagg te bu ma jaay nelaw yi jóg di ko tagg li may ci boppam àndu tëg leneen ko ci mbokk nanga ma baal nekkuma ci leneen tey it dafa fiir ci man kon nañ ñépp tey ci géeju leer ñi mu ci sóob ma ci dàq feey samay nuur ak fitti di feeye njaaxaanaay taqabal bal danaa ko def di feeyeen dafee naay yàlla nanu gën a baaxe bu tooñ mu lay baal bu kenn ci nun am bàkkaar nan mel ni Ibra Faal amin bi jaahihima mook al muntaqa ami feeñ ci weeru wu mag gi wi tey borom safa wa salaamu ala man ittaba